mbokk yi yéen ñi di ñu seetaan kon ci seen chaîne de télévision bi lee di euh, ND Vision ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen daral jàmm ci seen bile beneen numéro émission jotaayu euh, politique tey nag 8 euh, mars oblige ñu nekk ci bës bi nga xamante ne dañ ci sargal jigéen ñi moo waral tey nag ñu ñëw daal di seet si genn soxna si nga xamante ne mu ngi béy waaram ci li nga xamante moom moo jëm ci langue politique yi moom nag moom mooy soxna Fatou Dabo di responsable politique euh, di itam responsable xalifis ci région euh, bu Sédhiou xanaa rek euh, daal di koy dalal jàmm jox ko mu daal di nuyoog askan wi asalaamaaleykum soxna Fatou Dabo. waaleykum salaam Modou Fall bisimilah rahmaani rahim maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant samay ñaari waajur di la nuyu di nuyu sa caméraman bi di nuyu xalifis yi ñëpp ñu nekk ci la région de Sédhiou. ñu may seetaan tamit bu kii bi génnee maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. Mhm. bisimilah. xam naa bu ñuy xuus ci waxtaan wi fu ñu koy njëkkee mooy si sa jaar-jaar ci wàllum politique laa <laughs> ma dugal ci politique. lu ma dugal si politique daal euh, man dama nekk jigéen dans la région de Sédhiou euh, ma xool ñun la région de Sédhiou en matière politique ñun jigéen ñi toujours ñun góor ñi ñoo ñuy dominer ci politique bi actuellement ak euh, lii ñu wax parité. boo xoolee ñun la région de Sédhiou jigéen ñi nga xamante ni dañuy jóg pour oser def la politique bëriwu fa bu amee tamit mun nga ko wàññi par benn benn man nag bi ma juddoo ba ma màgg ma gis euh, doxalin ni nu ñuy mel sunu suñu diwaan loolu moo tax ma am ambition ne man am na lu bëri loo xamante ni man en tant que femme war naa dugg ci langue politique pour mun a xeex lu bëri ci suñu région bi particulièrement sama département Mhm. tey ci politique boobu nga dugg te nga jàppoon ni xëj na la ci taxoon a soobu mooy fexe ba euh, ñu gën a jox jigéen ñi gëdd ci seen boobule diwaan di Sédhiou euh, tey boo ñu doon defal xayma par rapport ak tolluwaayu lii di mouvement wu xalifis si euh, ci Sédhiou lan lay doon. lii di yi Sédhiou mhm. ndax ñun xalifa Sall mën naa wax ni Modou Fall man Fat Dabo man maa fa indi Khalifa Sall ci biir région de Sédhiou man socialiste laa bu yàgg loolu bi may nekkee jeune ba léegi bi may commencé tàmbalee politique man ci parti socialiste laa nekk mais mouvement kii xalifa Khalifa bi mun naa ne faddaa boobu moo ko fa indi ndax tey euh, dama gis euh, nu politique bi demee suñu côté ma nekk si parti socialiste gis euh, nu mbir mi di demee daal loolu moo tax man bi xalifa Sall demee ba ñu woon ko yenn kii daal ma xool ba mu yàgg ma ne man mii te maa jóg ma dem jàppale xalifa ci sama diwaan kon yow da ngaa jógee parti socialiste mais dàkkuñu la. dàkkuñu ma man maa xool nu mbir mi demee parce que injustice bi nga xamante ni teg nañ ko ko te teg ko ci loo xamante ni euh, maanaam mbirum politique la daal loolu moo tax man ma xool ba mu yàgg ma ne man. di bàyyi sama parti dem di fekki parti loolu du ma ci fekk bi Khalifa Sall taxawee rek loolu moo woon ma merloo man xaaral ma dem jàppale Khalifa Sall. Mm-hmm. waaw est-ce que tey par exemple euh, mouvement bi. Euh, am na doole foofu ci Sédhiou. Euh, macha allah bu njëkk bu ñuy doog a commencé mouvement bi amul woon doole bu baax ndax boobu xam nit boo nekkee ci ay tolof tolof ñu tëj la léegi boobu fekkente ni ñi ngay seet dan lan la ki nga xamante ni moo ngi kaso nan lañ ko mën a jàppalee mais bi mbir mi demee ba mu yàgg ba nit ñi comprendre affaire bi affaire politique la. nit ñi na commencé nañ mer ba mer googu tax na ba ñi ko bu xamul woon démb ñi ko bëggul woon démb ñëpp ko bëgg tey macha allah tey foo dem ci euh, la région de Sédhiou dëkk boo dem am na xalifis yi fa nekk am nañ fa doole macha allah actuellement. Mm-hmm. Khalifa Sall seen leader génn na prison boobu léegi mu ngi def yenn tournée yi di seet si ñenn ñi euh, yéen waa Sédhiou promettre na leen ndax na fa ñëw. Euh, incha allah ci kattanu yàlla ndax bi mu génnee ñëpp gis nañ te kaaral gi ba kii parce que mënoo génn nii rek. ñëw def sa action kiw politique il faut nga déglu dox li ngay dox ci suuf ba pare après nag boo paree nag nga doog a jóg ñun nag promettre nañu dina ñëw dans la région de Sédhiou ndax bu commencé tourner moom soobee yàlla yonente ba dina ñëw Sédhiou incha allah loolu sama noppam la a sama gémmiñ mhm. tey Sédhiou politiquement ci côté développement yenn politiciens yi fa nekk euh, boo ñu doon wax ci région bi tey euh, fan la toll ci côté développement ci jàppale bi nga xamante ne politiciens yi war nañ ko mën a jàppale région de Sédhiou. région de Sédhiou. Mhm. côté développement. Euh, gis ngeen seen bopp ci biir gouvernement bi nu muy doxe waaw ñun de wax dëgg yàlla ñun gisuñu suñu bopp ci gouvernement bi ci muy doxee ndax gouvernement tey dafa mel ni par par loola ndax ñu féete seen côté ñoom daal ñooy gis seen bopp mais ñi nga xam te ni féetewuñu seen côté ñoom gisuñu seen bopp ñun Sédhiou noonu la même loo xamante ni ñëw na rek. côté gouvernement bi ñooy am côté opposition bi ñoom duñ si gis seen bopp loolu moo tax développement bi daal moom ñun gisuñ si suñu bopp daal ci lu bëri waaw. Euh, tey euh, Fatou Dabo seen nga xalifiste nga. Mm-hmm. est-ce que am nga ay ambition xëy na peut-être un jour pourquoi pas nekk candidate ci mairie bu Sédhiou. ah loolu kay Modou Fall loolu sama ambition la ndax euh, ñu ne wàññi boo gis benn lay commencer ndax maa ngi raam raam gi may raam nag bëgg naa ma raam ba dugg ci mairie ba incha allah. ndax loo gis ndànk-ndànk la rek maa ngi xeex maa ngi dóor maa ngi xacc maa ngi def lu ne maa ngi bëgg yootu mairie ba te assemblée sax bu ma ci yàlla jàppale bëgg naa ci dugg incha allahu rabbi. yaa ngi ciy waxtaan ak say leader. maa ngi ciy waxtaan ak ñoom bu baax a baax ñoom xam nañ ko maa ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi xeexandoo ñu ngi xaccandoo ñu ngi dóorandoo waaw euh, loolu nag dafay laaj xëy na ci doxalin conseil municipal bi. ci ci ci ci Sédhiou. Mhm. tey boo ñu doon nattal ndax nag ñoom euh, man seen mandat jeex na. Mhm. xëy na bu duloon liñ leen euh, yokkal li nga xam ne mooy mandat bi tey ñu ngi toll fu ñuy waajalee élection. Mhm. ñoom seen liggéey rafetlu nga ko. ci waaw man sama commune Tanaaf laa xam parce que man conseiller laa ci mairie ba. Tanaaf daal wax dëgg yàlla. Euh, nit du ne nit dugg na ci mairie ba même bant defu ko parce que li ñu liggéey daal moo ñu doyut ñun nuñ ko bëggee Tanaf développe nu mu war a développé nu mu war a dem ak mairie ba ñu fa war a liggéey loolu moo des si ñun waxuñu liggéeyuñu de mais seen liggéey bi dafa des lu bëree bëree bëree bëri loo xamante ni war nañ ko def biir Tanaf te tamit ma damay dégg yeneen communes yi tamit ñoom it dañuy dañuy dañuy plaigner ñëw di wax seen i gox ni developpement bi nu mu fa demee loolu yëpp a ngi plaigner ñëw dëgg yàlla Mm-hmm. donc liggéey bi des na daal. waaw des na te de mon côté nag. Mm-hmm. liggéey bi des na. waaw euh, tey développement wu Tanaf looñ ci mën a wax euh, parce que léeg-léeg ñu gis ni que xëy na parfois euh, dafay am ay mbir yu ñu fay signaler jëm ci wàllum sooxe ci ci ci ay fànn yu bëri tey priorité bi ci côté Tanaf lan lay doon. priorité bi ci côté Tanaf ñun la première chose d'abord mooy sunu yoon yi ndax xaw ndax boo xamee Tanaf ñun yoon bi ñu am. mooy lu ko dalee ci Tabokoto mooy dëkk bi nga xamante ni fa la Moussa Doussou fonde dem ba hôpital fa la oto yi war a jaar pour yóbbu maladie mais yoon boobu yëpp ay pax la yoon bu ay kàmb la oto mënu faa jaar jakartaay sax bu moytuwulee dañuy daanu ak bu jóge kër imam dem ba Konkodumoto ci biir a biir boo demee foofu sax kenn du la ne fii mooy Konkodumoto foofu yoon yëpp ay pax ay ngandi kàmb la kenn mun faa jaar sutu la nuit kenn mun faa jaar foofu moom mooy sooxe bu njëkk. ci li ci ci kii deuxièmement encore ñun district sanitaire maanaam hôpital hôpital amu amuñu ko ñun dispensaire la am ñun amuñu yenn matériel ci hôpital bi amuñu ko te loolu tamit. en tant que commune. en tant que commune amuñu yenn matériel yi amuñu district sanitaire amuñu yenn matériel ci hôpital bi daal niñ loolu moom suñu sooxe la daal ci biir ci commune bi loolu ñu ngi koy jooy waaw. Euh, maire bi euh, yéen moom yéen a bokk mouvance. non maire bi moom. PDS la man socialiste la mhm. waaw. mais déggoo déggoo nañ amuñu benn problème mhm. amuñu benn problème déggoo nañ. tey bu ñuy wax 8 mars. xel yëpp day dem ci jigéen ñi. Mhm. Euh, en tant que femme leader. Euh, nga yëngu ci politique. boo ñu doon euh, defalub xayma tey tolluwaayu jigéenu Casamance yi. ci wàllum politique lan lay doon est que gis nga ni mbir maa ngi avancé. waaw jigéenu Casamance mun naa ne neex na neexut. ndax xëy na yow Casamançais nga xam nga lu bëri luy dox ci sunu Casamance boo xasee jóg ba nga ne man politicien laa man en tant que femme xam naa ne dugg nga si jafe-jafe yu métti métti dina métti lool waaye nag boo ko muñee rek day jeex ñu jigéenu Casamance yi benn am nañu complexe benn maanaam comme dem mbooloo mun a wax ci biir mbooloo mun a kaas si biir mbooloo mun a xëcc loo xamante ni tey man mii faddaa ba ma ne politicien laa ma nekk tanaaf dara war a am dakaar ma mun a dugal sama loxo xëcc pour lu mu yóbbu sama waa dëkk complexe boobu am nañ ko si femmes yi waxuma amul de waaye bariwut loolu moom mooy sunu kii daal ci en tant que femme. mais loolu aussi est-ce que du parfois seen borom kër yi ñoo ko ñoo ko dul yombalal. waaw loolu tamit am na ndax euh, da ngay gis euh, nga comme nga tàmbali nga dem ba si biir. sa borom kër di la indil ay problème ay fiiraa ngay dul jeex loolu yëpp day am mais nag yow boo duggee si làng nga xam ni lii moom a dugal da ngay ànd ak ngëm ak ak ak ak dignité ak kii daal pour nga mun cee mun cee génn loolu moom góor ñi wax dëgg yàlla des fois nag nga gis tas ñu baax ñoo xamante ne ñoom ñooy jàppale seen i jabar léeg nga tas ñoo xamante ni tamit ñoom ñooy sonal seen soxna. pour ñu dugg pour ñu dugg ci affaire langue tey message bi lan lan lay doon ci 8 bi par rapport ak say moromu jigéen. waaw samay morom jigéen euh, man daal dama leen di encourager ndax dama leen di wax ni dara yombut lu góor mën a def jigéen mën na kaa taxaw wàllu liggéey wàllu politique waxuma nag ci ay imaam ak yu kenn xamut parce que bu ne parité tamit parité am na fu mu fu mu yem mais lu góor mën a def ci wàllu liggéey lu moom góor mën a def ci wàllu politique. jigéen mën na kaa def man daal maa ngi ñaan sama mbokk jigéen surtout la région de Sédhiou nañu lu ñu takk seen ndigg liggéey léegi kenn basé tout si góor fi mu ne nii jigéen bu nekk yaa ngi takk sa ndigg li liggéey nga dem wut pour sa njaboot ndax njaboot gee ñu sonal waaw message boobu daal laay am ci lu may lancer les femmes de la région de Sédhiou bépp jigéen daal moom sa jàmbaaru bopp nga nañu liggéey nañu am jom nañu respecté suñu borom kër yi teg ca te booy liggéey tamit bu liggéey. ne doo respecté parce que tamit sa ndigalu borom kër ci ngay demee waaw mais nag na nga am jom jóg takku liggéey man daal loolu laa message boobu laa am ci lu may lancé sama moroomu jigéen ñi de la région de Sédhiou Euh, mbokk yi yéen ñi di ñu seetaan kon ci seen chaîne de télévision bi la di NDA Vision euh, mënuñu noonu nag ñëw seet si euh, Fatou Dabo di politicienne ci daanaka diwaan bu Sédhiou te duñu itam daal di waxtaan ak moom ci wàllum soose ndax nag loolu moom yaakaar naa ni moom sax duñu bàyyi moo tax nag mbokk yi dañuy rek daal di kon demaat ci li nga xamante moom mooy ci langue soose bi Badi Manikol Niaka muy dal ngal konton bake bake ka itandi ka foko bi euh, nal euh, chaîne de télévision ka fumu yeko nd vision nata euh, hani bi politicien wone jube ka fumu yeko fat dabo mu yalon ko abi maman kam politiko la fannala seju région to woto nga konton ni wokola sina dun ka chanyi kono fat dabo assalamu alaikum wa alaikum assalam mbe ala tentula ngasar kilala sallallahu alaihi wasallam menna alfa fulol tentula mot fal mbe kontonna eni la cameraman o anen na responsable ol few fen yalon ko iko khalifiste olon abe la région de Sédhiou tous les trois départements birim punkiling euh, Sédhiou Goudomp mbe mobe kontonna atona kontona mm-hmm. euh mo ne no politique ko euh mot fal mo ne ndunde politique ko no wala mo ntallama fanna politique ko par ce que namafawno politico de un yalan wo dula mo fosurwa kawan par ce que ntelnga juɓele birindinde ntenga jele politico ka kenum casamance ñaame e ka bonan jamma fon la e ka tan tella bankoto e naata e kon naata politico la ni naata casamance e ye mol nene ni politico site ko mole kon laftale yenke man sati ni ketati foka bayi bu kane je kotenke foni wato mina élection sita kote nte men tawole kono natanna nata en tant que femme mbe willale fana ganna siti par que ñim makkato fonga bay fonga ñim makkato bay en tant que femme musole munti fana mbe ɗum na politique o to le par que politique o nin ɗum taƴe pour nabankolo yo o xammo wala yen dundi politique o la pour ko makato bay mul o na banta e na si jam a wato ko ni wo sain nan taro bannale fon nga politique o ke fonle poɗen ɗum ndin poɗen ɗum ɗi lango o e mu conseil municipality tanaf mm-hmm. Mm-hmm. commune o to euh, mm-hmm. bien sa fof no allah manda bantale euh, bari euh, ye kafunnawo mum ke ala wolatnal ɓe siri je fo sayi isemune fo no molle allah ñim manda to ani tanaf la tañato tanaf la tañato nañi manda ka foye doron gam wakkil doron mais mun na kunu ga kafu yo tanaf la tañato nte dal nte ɓe wole suuta anin tili pour wakkili par que bii ibe ko kundinila nima bula politiko ko nata silima kono ngam wakkilinu fam fam fam fam nga kambe on soto nga tawul siting nga dum mol kan nga fundi mol kan ni mole kacca parce que tanaf ni kayta nyaato fonda mol nga ke kilinti nga ñoo nga ñoo nga ñoo fenke dal politigo la côté la mo ma la ko liati tanaf be ah tanaf na ko liya euh folo folo folo wala mun na silol na silolu kabo tabo ko to fo hôpital to kabo almamola ma fond la kata fo konko dumoto fonna premier la bundala o ma fond silo han kilinema mbeteya a bemo dinkolete oto bukatano je saret bukatano je han jakarta bukatano je a tabotana birintal lawo ma fond la man sakunda fo ibita fo konko dumoto ika way siwla fo ibita dam yefuta je mais jakarta bukatano ma fond kono wokkoleya bi o bentel kanne folo mod fal fola jankote ntal dispensaire ol be mbulu man hôpital soto te matériel jamaɓe tana ndimmala to sotota nata jeeto pour ye évacuer fota seedio ni alama banta ɓeŋe sidansilo kan yo koleya fanan ɓe balal fana mun na koleyalti a ñin koleya fulol folo mool lonne folo ko koleya tana fon kool bo kumbo kumbo kanne oɓe jeel tilsei mars karo ni be yo moy drong be hakilo kata musole kan katun ike telle bunya eh, anyi lunyina eh, bi eh, kuma kan jumal be bulu mu yalon ko nyanta sindla badi musol mbe mm, musol be remercier la folo ka musol be content ka musol be tentu ke ke foye bonne fête yo bari mbe musowol fanal message o mum diile la wolon sa musute musute sirin ɗum sa moliya jele muso be mu dow ko lallete pour ka fo muso beye ko nañol ɓe wakkillinne bara wakkilo kafu gam wakkilo kafun nu ko eh, ko ni bala inila suutu e kacca na ye bulala yetta yila dow koke par ce que sa mbini ya juuɓe ƴeewa fo ya juuɓe sa fo feng hani mécanicien musol taximan musol sa be so total koni ɓe kuwo kunne kono doron ye ye ye wakkilo samba jeeto ye dow ko fanfan samba jeeto ani mana mbowo fola ñaade mhm. yow be samba jeeto dal ɗum tabo message o mbo lancé lan namusole ka fof ko ye wakkili fanfan wotaɓe damin to feele um futata eh, émission eh, o dandula to sanka kuma kan wurandima ko tete doron isela kuma kan laɓon tambindi inchallah waaw mot fall jandimɓe kuma kan laɓon tambindi la mhm. cadre politique o mbemo hulanan domande par ce que bi ntan mo halifi solde mais Boga mais Sidi Dakar Dia mais na base de Tanafle de la région de Sédhiou de tous les trois départements telle muy la présidente oti devant toutes les femmes bari bi euh, koleya ben kan koleya ten kan euh, parce que bi moyen ten bulu yo avec peu de moyens mu ben bulu nka ji wala na base yo tellement dépendre ni mairie ton collègue mhm. koy ya dinna la ngata mais mo ben bulu amadou pamba trané aɓe paare ɗum tawi mbanndinoɗa émission nan ma attentu mbi niyaje nga courage o soto niyaje bi wakkilo ɓe nakotena alata kola ke par ce que ni ga kili wato watin ka mbiyata casamance il faut kaya buloɗu ngala pooso a sikkata ñawña aba kila ñinanne akoñoɓe ta tout récemment rek bonnan tourné la na suutoye auto de nga carburant ke jen tat nga euh, fenge ke tanaf nga sare tene euh, kolibantan karantaba nga ñinke ntata fo ñandanki carrefour jarume ntata njama ntata jarume wonɓe silo kan wol be manane tout aninna moyen par ce que bamba wole ma bunkiling bi musole eh, labirolo wolu par ce que bii association baale bi jeng ka ba Dakar jand nga ta bunkiling nga assisté la réunion la ila fonkol activité be la ni e bandi nga silomotanga ɓuruna dakar mais à cause de bamba dramé a tele kan appui ɓeyla tout on nak bamba mba falaye ko franchement merci beaucoup wañen tarnala ñim fendumale kono a binala jangge nanata coté mbe murulale coté ñim fendima kono gatanga murmuru ke demondi gana murunan coté gassi kono mbe bamba tentula mba jeyla yo mbe a téléphonal tentula euh, anila disponibilité parce que bonna birin jeeli nata yen taral fon nañim bun kono kana kan Ah, franchement mbe tentula mbe caméraman o ñin tentula mbal jeyla fanfan mbe nañi halifi sol mi yalon koy bebe sirin janto bi yela hajo be bule na tan kunna jang kon mbe be tentula mbe be la mais joran soto kon nag euh, waaw li ma wax ci soose moom laay wax ci olof euh, nee na lu may àggalee sama sama sama wax ci mhm. maa ngi nuyu ñëpp nee naa ko mënuma tënk sama wax ci te gërëmuma ki nga xamante ne tey moo may jàppale ci sama politique bii te kii Bamba Dramé mu ngi pare Bamba Dramé tey gannaaw yàlla ak yonent ba boo gisee ma am peu fit bu baax moo may dooleel ndax man peu de moyens bu ma am mënul jóge fii chaque fois may wat ci base bi di va et vient mais saa yu ma ko tàggoone ko dama bëgg a dem ci base ba war militant yi tuuti mooy yónnee mooy ti xaalisam yónnee ma ko ma dem wër naa fu nekk nag tout sama rek laa fa jóge sama borom kër jox ma otoom ma def ci carburant moom mu yónnee ma xaalis ma dem parce que Casamance tey ku ko xam nga xam distance wu dëkk yi nga xam dëkk yi yoon yi nu ñu mel ci àll bi xam naa buñ ko filmé woon tey tey tey ñi daan votel sax Macky Sall wallaahi lazim tey duñ ko votel parce que ñun amuñu yoon yi baax ci biir àll bi amuñu benn yoon bu baax mais da ngay def risque boobu ngay dugg ci àll bi fu ne ngay dugg di génn kon nag Bamba boobu laa ne man dama koy gërëm di ko sant bu baax ndax nit bu defalee bu la defalee lu baax moom tamit nag c'est un grand mi ngi fii Paris mu ngi jàppale waa Bounkiling amul dara ci Bounkiling nag waaye ñun lay jàppale ndax bëgg xalifa rek te yàlla tax kon nag maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm tamit sama président xalifa Ababacar Sall ndax mënumaa wax si télévision wala mënumaa wax si média te tudduma ko ndax tey nekkin bu ma fi nekk rek moo ma tax a jóg kon nag maa ngi koy gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér ak wér la di ko ñaanal lépp lu mu bëgg yàlla may ko pale bi nag Macky Sall abal ñu rek ñu dugg fa rek dem toog waaw loolu lañ bëgg ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax moom soxna Fatou Dabo mi nga xamante ne moom lañ doon àndal tey ci jotaay bi euh, ci seen émission euh, jotaayu euh, politique kon di koy sant bu baax a baax a baax ci bës bi tey ndax nag bësu jigéen ñi la 8 mars bu ñu ko waxee rek xel yëpp dem ci jigéen ñi ñu ñëwoon tey àndoon ak moom ci jotaay bi di wax rek ni kon moom responsable politique la ci région bu Sédhiou di conseil municipal itam ci commune bu Tanaf ci présentation bi nag ngeen àndoon ci ak Mamadou Fall ci caméra bi ñu àndoon ci ak ñi nga xamante ne moom mooy sëñ Moustapha Seck kon mbokk yi jàmm ak jàmm.